seen site d'information Sine TV nekkee fi ci diwanu fatik andi leen lu bees tàkk lépp lu jëm ci walu sport culture éducation santé ba ci politique wala sax information ñu leen di proposer ay vidéo yu muccu ay bi nga xamantene da fay top lepp lu jëm ci walu actualité Sine TV nek fi ci diwanu fatik togal fi région bu fatik ak Sénégal Sine TV joko jàll. fi ci fatik waaw nous avons un constat parce que nous euh, avons voté ici, moi ci école école Amadou donc nous avons un constat des leaders qui ont voté ba avons un jël stock les gens c'est pas du tout normal donc dem euh, euh, président commission yi nekk Sénat je l'ai expliqué ne ko c'est pas normal parce que bo def bo tourner sa caméra automatiquement da nga leen gis ñu ñu tek sen sen seen seize ku ñëw ñu lay orienté dila la influencer wa wa dañuy jema jënd carte c'est pas normal wa donc ma ngi ma ngi ma ngi lancer appel Sénégal yëpp ñu def constat bi au niveau de Fatick école Amadou Daly Faye ngi dégg donc c'est dama len dama len gis te te.

Euh, bonjour, euh, je m'appelle Aline Badrassar, je suis le mandataire euh, de la coalition Diomaye Président. xam nga tey journée mobilisation tey journée la journée de journée vote la sécuriser vote parce que nous ñu une mobilisation campagne qui concerne les électeurs yi ce xam nañ lan leen war bon à part yenn électeurs yi nga des personnes à mobilité réduite ak des personnes âgées

waaw euh, da ngeen a yéex a ñëw xëj na euh, te loolu jógagu fi ban tey parce que boo xoolee la plupart ñu ngeen gis ñu toog ci ker gi ñoom defuñu fa dara bu ngeen demoon di nga leen fekk ñoom encre indélébile ci seen loxo kon heure bi ci seen i kër la leen waroon a fekk mais buñ fi toogee dafa am lu leen fi téye parce que ñun constaté nañ loolu ci suba ba ma gis sama yenn naataango yi nga xam ne ay plénipotentiaire lañ euh, ñu saisir

ñuy def façon boobu loolu ñuy ñaawul la te du lu ñuy rafetlu ndaxte démocratie weesu na ci li ma jàpp. seen site d'information Sine TV nekkee fii ci diwaanu Fatick indi leen lu bees tàkk lépp lu jëm ci wàllu sport culture éducation santé ba ci politique wala sax information ñu leen di proposer ay vidéo yu mucc ayib yi nga xamante ne dafay topp lépp lu jëm ci actualité Sine TV nekk fii ci diwaanu Fatick toogal fi région bu Fatick ak Sénégal Sine TV.